di ñaanal président Ousmane Sonko yàlla na ko suñu boroom defal jàmm président Ousmane Sonko yàlla na ko suñu borom defal jàmm te yaakaaram incha allahu rabbi du tas du tas nag mooy dama leen di wax rek ñaar rek mooy mbiri président Ousmane Sonko nekkul ci ay këyit rawatina këyit wuy bàyyeekoo Sénégal loolu moom wax naa ko bu yàgg waaye la set bii ñu jëm dafa am lu ci xew la 17 ñu bëgg ko cee rendi te président Ousmane Sonko waru cee dee. li tax ñu bëgg ko cee rendi mooy 17 plus 17 égale 34 yaa ngi may dégg 17 plus 17 égale 34 ñu jëm ci ay élections yoo xam ne 2024 la ba noppi waykat bi jaaroon fi daal ne 4 4 44 ma ne ko indépendance ngay way dëgg la de mais ñi ngi jëm ak yow ci 2034 mooy suñu ñaari mandat te moom suñu bopp googu. dañ koo soxla ci le 17 bi na ngeen déglu wax ji bu ngeen demee xam naa dina naqare jàpp tuuti ci ñi dul siiful ma lay wax ne li gën a jafe mooy ray nit ku deewut te président Ousmane Sonko ñu ko wër dañ koo bëgg a ray ray gi nag mooy sepp ci ay këyit def ci ay mbir loolu amul solo xam nga li ëpp solo mooy di xeex suñu borom wala ngay xeex koo gisu te Sonko yomb na rajje yomb na tas partem waaye xam nga lu jafe génn ci xolu jaam ñi président Ousmane Sonko ndax yàlla moo ko ci def te yàlla noppi na ci moom moo tax yëf yi ku yabu nang ci rafet ta bañ cee ñaaw kàddu yi jërul muy gudd jot amul fenn te ñu ngi ci ay liggéey jërëjëf soxna si. mu na sax xam nga <laughs> xam nga Sonko gagné na. ba pare ñu yàq ay këyitam demul élection boo gàttee xel da naa naan laa demul élection yàq nañ ay këyitam damay wax rek loolu du am Sonko. nan la gagné tey ndaw ñii ak donga daara yi ak ñii ci dëkk bi nii ñu jógee seen xel yi yeewu ñu xam li nekk ci seeni réew politiciens yii duñu ndax ñu bañ ko loolu kan moo ko tàggat ci ndaw ñi mooy président Ousmane Sonko lenn la desee ak ñun ñuy dem ci pale bi te loolu ci kattanuk yàlla fii yàlla mi ngi mi ngi mi ngi koy jox bakkanam ci kattanuk suñu borom dinañ ci yegg mais xëccoowuñu yàlla dara te lu am yàlla la waaye Sonko dafa nekk nit koo xam ne bu ko Sénégal xamoon jàpp naa ne moo tax gis nga Sénégal meneen musibam naaru laay dana maa la ko wax de moo am de puisque kii ngeen dugal ci kaso bu ngeen ko xamoon yaakaar naa ne waaye moom de daa am yërmande moo tax lu baree bari boo koy wax ñi xamut ak ñi dul siifur ak ñi dul liggéey ci wàllum yëf dañ naan kii lii lan la mais Sonko bu ko Sénégal yi xamoon dañ koy waggar biir na ma ne bu feeñoon ci beneen pays danañ ko téewee neneen mais ku fi mas woote woo lu baax rek sonn nga tàmbalil nag ñii ray nañ leen ñii tëj nañ leen ñii fekkiwuñ ko moom nag tëj kasoom dafa bokk ci yoonu paleem wasalaamualeykum wa rahmatulah. mais aywa dem na. justice nee na Ousmane Sonko day nekk bu ñu kenn dugal ci beneen langage bu dul di justice wax wane ni Ousmane Sonko candidat la wane ni Ousmane Sonko ñoom ñoo wax ni violé wul. wane ni Ousmane Sonko kenn mënu ko génne ci loolu dafa baax mu préciser ko ba mu leer te ñu ñi ko wax du ñun ñi ko wax du waa Pastef ki ko wax ab juge la bu dëkk ci réew mi bu dee Sénat bi ko wax moo taxoon Macky Sall nekk président parce que Sénat bi moo valide candidature Macky Sall conseil constitutionnel soog ko valide kon wàllu yoon moom nekkatul débat moo tax bi ñu toogee déglu yoon ba yoon àtte ba noppi. ñu ne nag kon yoon àtte na ba noppi te ñu ni am na ñuy defi pexe pour nësaxal yoon ci lañ ñu nag ñun ñooñ daara am nañ arme bu dëgër boo xam ni yàlla jox nañu ko yonent bi jox nañu ko boobu mooy ban mooy arme ñaan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko ak doo am silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit ñaan mooy ngànnaayu jullit rawatina nag. mazlum li ñuy wax daawatul mazlum laysa baynaha wa bayna allahi xijaab boobu yonent bi ko wax nee na ñaanu ku ñu tooñ amul benn xijaab buy dox digganteem ak boromam lu ñaan ngi day ñam bi ñu demee ba gis ni lii nag ak tooñ la ci la ñu e mayetul ñu noppi diine mayetul ñu noppi éthique mayetul ñu noppi moral mayetul ñu noppi moo tax ñu jóg jël suñuy responsabilité en tant que ay doom daara dëkk ci réew mi dañ gëm ni réew mi buñ ko doon seetloo kenn ëppale wu parce que ñun ñu toog fii foo ci jël maamam rek ba taxaw jotee ba taxaw jotee jamono bu metti suñuy maam taxawoon na kon fii lu fi nit di xoq lu fi nit di tiit amul parce que ku mën a tiital nit ñi yeewul ci réew mi yàgg naa di ko parce que réew mu Thierno Souleymane Baal jaar ak maam yi Abdou Khadir Kane Diallo ñu exilé fi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Seydi Hadji Malick daaj zawiyam fii ci digg bi ñuy jàpp nit ñi moom bu xam démbam lu jamono xat-xat di nga wax li nga xam ne moom nga xam ak lu la ci mën a fekk tey gor ñu nekk ci kaso bi yëpp wax seen xalaat moom la koy te ñun pare nañ bu fekk leen parce que kaso ak kii la rek maanaam jaar jaaru nit la. pour mu mën faa gën a dëgëralee tawxiidam ñun na leer ñun suñu discours dafa leer du discours bu irresponsable waxuñu kenn nga jóg xeex des deux mille waxuñu kenn nga jóg salfaañe république parce que ñun république bi lañ gëm ni kenn ëppalewul gëm ni ñu koy bëgg kon ñu ci alxuraan sa yéene jooju yàlla ko ko yàlla àggal kon bugguma guddal wax waaye mu gudd mu gàtt mooy na ngeen gëm ni combat bi gagné a ko ba noonu parce que juste su réew mi moo ñu jox ndam ñi doon wax naan la force restera la loi tey ñooñu la ñuy laaj ñoom ñu respecté loi la loi est dure mais c' est la loi yéen ñi la doon wax ni nañ topp loi loi nag tey moo dal seen topp parce que Sénat nee na Ousmane Sonko day nekk ministre bi Sabassi Faye wax na te ñooñu ñoo ñu ngi leen dégg suñu kaaraange. leneen li nag mbiru politique la mbiru politique nag politique moo koy rek waaye ñun en tant que ay sëriñ daal suñu responsabilité mooy devant l'histoire ñu toogaatee ñetti téeméeri at ñu ne am na benn ay nit yu jógoon taxaw bañ bëggee complot Ousmane Sonko ni ñuy complot ñun duñ bokk mukk ci ñi nga xam ne ëllëg bu histoire di bindaat dañ naan sëriñ si ñoo complot woon Ousmane Sonko ñun duñ ci bokk na leer ñun ñu koy wax ay doomi sëriñ lañ ay addiya lañ ñu ngénte sëriñ boo fi gis ci réew mi buñ boo tekkee sa kaala ñu mën a wax ak yow mën nañ laa xool ci bët waxtaan ak yow parce que ñi fi ne ñëpp nag jox nañ ñëpp cër mais suñuy nawle lañ loolu mooy dëgg de ku ko xam looluy dëgg ku ko xamul ñu dëgg ñun duñ bokk mukk ci ñi histoire bi bindaat ñu naan dañoo dañoo noppi woon dinañ wax lu ëllëg lu mën a xew ñu ni dégagé woon nañ suñuy responsabilité parce que man gëm naa ni Cheikh Nadia Blaise Dabakh sama sëriñ bu ñëwoon ci contexte bi du noppi gëm naa ni bu Seydi Hadji Malick ñëwoon du noppi billaahi loolu laa gëm naa ni sama maam ala Thierno Dramé bu ñëwoon du noppi ci lii parce que complot loolu moo ma inspiré may taxaw moom gëm naa ni bu Serigne Touba ñëwoon ni du parce que Serigne Touba mënut a noppi ci institut ñàkk kon doxal leen yoon Sénégalais yi tànn. képp ku ñu tànn ñu xam ni yow yaay nekk suñu président waaye tànn fi koo xam ne amul légitimité ay lobby tànn ko loolu mënta doxal am réew kon delloo si leen seen xel réew mi ñun ñoo ko bokk am na loo xam ne xaju fi réew mi ñun ñoo ko bokk am na loo xam ne xaju fi kon sëriñ daara yi jug leen ngeen taxaw leen génn yi mag yi mag yi yoroon mag ñi ku nga xam ne ni amoon nañ bagage yu ñu bàyyi ku nekk yaa xam sa mbiri kër na nga koy doxalee ñaan bi daal lenn képp ku bëgg a sànq Ousmane Sonko nga sànq loolu mooy ñaan képp ku ko yéene jàmm yàlla nga am jàmm lii nag kenn ku ne am ko am nga droit ko ñun lii rek lañ wax woote wu ñu xeex woote wu ñu violence na leer parce que ñun suñu responsabilité mayu ñu loolu waaye ñu ngi ak appliquer justice maa ngi nuyuwaat ñëpp nag di nuyuwaat réew mi di jéggalu ci guddal bi di wax ni insha allahu rabbi bis yi ñu jëm bisu ñaan la nañu taxaw ñaan delluwaat ci alxuraan woote wuñ tamit ak njabar ñaan lañu wax waxuñu ne njabar de parce que ñun ay jullit lañ ñu njabar ci biir alxuraan am na ko turu yàlla yoo xam ne walillahi asmaul husna faddu ko biha mu ci tàmm bi yooyu tur yàlla yooyu dañuy wax nañ ñun ñaanal ci Ousmane Sonko mu génn ci jafe-jafe yi mu nekk te am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee ak yéen a ju sell yàlla moo ëpp doole lii dëgg alxaq yaxlu wala yow laa ali dëgg mooy féete kaw te ñun ci dëgg lañ nekk parce que suñu justice réew moo ñu def dëgg kon dañ ko yóbbu ila islam masta taal wa maa tawfiiqi illa billah